dañu yàqal waa ani élection présidentielle mm-hmm. lan moo ci yoonu Adji Sarr lan moo waral ñuy ñuy tàccu di wax li ni mel dafa am lu ñu defoon mm-hmm. li li tax ñuy wax lu mu ñuy wax li ni mel wala lan la lan nga jàpp yow euh, ki wax loolu wax na dëgga ah. mm-hmm. ci naka. mais nag dafa aajo ñu ñu firi ko parce que boo ko bàyyee noonu rek euh, duñ comprendre lan moo tax euh, dafa am benn moment am ko ma ko wax ma ne ko temps bi ñu waroon def ci seen candidat muy Amadou Ba ci di ko waxtaanee ci plateau yi. Mm-hmm. ci di ñu wax mooy kan pour présenter ko Sénégalais yi. Mm-hmm. dañ ko def ci Adji Sarr. kon kooku kon bu utiliser turu Adji Sarr rek juumul wax na dëgg. maanaam énergie bi ñu def. ci combat ak Ousmane du jëmee Adji Sarr maanaam comme si nga commencé rek ci lay ñëw. Mm-hmm. mais façon bi ñu combatwee ak Ousmane Sonko. moo tax Ousmane am cër bi mu am. maanaam toujours dañ doon jël li ñëpp bokk. di ko xeexee. ba ñëpp sentir ne Ousmane léegi yematuñ ak moom ci terrain politique. mais feneen lañ nekk jéggi nañ sax wàllu politique. looloo tax Ousmane mën a am cër bu toll ni. Mhm. ñu xañ ko moom mu bokk mu indi nit ñu nangul ko ne ko d' accord ko ñu indil baax na. Mhm. dimension boobu sëriñ sax yeggu fa ci vote. Mhm. laajal ñi nga xamante ni ñooy ñooy kilifa diini yi yi yi occupé yenn kër yi. kiñ bëggoon askan bi voteel ci seen i kër. voteeluñ leen. moo ne moom Ousmane cité cité ba cité kër góor gi dafa joxe ndigal ñu topp ko ci kon nga yëg ne kon loolu li ko ko jox na ci façon bi ñu doon li bi ma ni may limee Adji noonu lay limee Coura xam nga sànq euh, Cheikh Bara nee na matal na mission mais dañoo xamul ne nag mission boobu ci li leen gën a sànq la bokk. Mm-hmm. xam nga boo indee sànq Coura Coura Macky. Mm-hmm. indi leen ci benn institution bu toll ni assemblée nationale. man bu ma taxawee man Mansour par exemple wala bokk tam benn élément Pastef toog. Mm-hmm. ne la Macky Sall day fooyee ay institution xoolal ci Coura exemple bu gàtt la <laughs> pour Sénégal yi dégg ko day yomb. maanaam loolu ci moment bi muy taxaw di saaka Ousmane sonk ci assemblée di saaga keneen jàppoon nga ne lii mooy li nga soxla mais dafa am fooy tollu am leneen loo soxla. muy convaincre askan bi ci discours responsable. effectivement. loolu moo leen mujjoon të bi ñu soxlaa wax ak askan bi. ba ci seen Amadou Ba mi ñi koy tàgg yëpp leen rek lañ koy tàggee dafa calme dafa noppi mais campagne soxla wuñ ci ku noppi. ku am discours responsable lañ soxla. mais nag eh, bañ ko compalee bañ ko compalee ci xaalisu <laughs> fële impôt ba. ba ka ba Ousmane ne dama ko dafa yëkkati ma ne ko teg ko fi. Mhm. ah mais répliqué na de. non mais est-ce que est-ce que ngeen suivre ngeen Amadou Ba ci campagne. foofu répliqué na mhm. beneen nit la woon. calme nangam nangam il musul calme. fi mu feeñee dëgg-dëgg. <laughs> mooy bi mooy bi mooy mooy bi gaañ génnee génnee prison ci la ci la am soppeeku ñu doog a xam jëm dëgg-dëgg jëmi am mais li amoon solo rek. il a tardé à se révéler voilà mais li amoon solo. mooy euh, li ñu janoo woon yëpp ak Ousmane Sonko. Mm. pour di ko faagagal dama jàppoon bu buñ ko janoo woon ak askan bi xam ne askan bi yeewu nañ ñu ñëw ànd ak ñoom fexe tenir ay discours yoo xamante ni yu am solo la wax leen fan lañ jëm ak ñoom parce que dëgg la Macky loo ko contre contre am na lu mu fi def lu bari loo mën a wax. Mm-hmm. mais nag dañoo dañoo dañoo dañoo janoo ak ba talu ñoo wax li fi Macky def. Mm-hmm. benn dañoo janoo ak seen i opposants ba talu ñoo expliquer ni mu ko defee Sénégal yu bëree bëri xam nga boo leen teer lu ñu lay wax am na solo mais coup bi lan la. léegi léegi léegi voilà léegi boo tollee boo amee askan boobu da ngay fexe bay mën a am réponse seen i question yi ñuy am askan bi léegi question yi ñuy am nekkatul ci def nga teer nekkul ci def nga berte mais ban coût nga ko defee fexeel fexeel indi réponse yi te mu doon loo xamante ni lu askan bi lu askan bi nangu la li li koy nangoo mooy nañ koy tàmm bu mu nekk loo xam ne day doon ay exception boo defee biir na bu leen ko def bii feeñal ko ki génn wax lii kii ñëw wax contradiction yooyu daf leen yàqal lu bare bare bari ci élection bi ba tax na bi ñu demee ba joxe résultat jot ci ci guddi gi loo doon gis élection législative moo ci mujj wala boog local ci guddi ga Mimi Touré boobu moo nekkoon seen tête liste ca guddi ga la ñëw bi ñu voté ci guddi ga la ñëw si permanence bi mm-hmm. euh, commencé civilisé li nga xam ne moo di seen seen seen victoire wax li nga xam ne am nañ ko en nga ñëwaat mm-hmm. bun Abdoulaye Dione laataa ñuy yegsi ci élection la waxoon ñoom li mu jàpp moom la ñuy am ca guddi ga lañ génn civilé mais bii nga gis Amadou Ba bi waxtu woo jotee nga gis ne boo xaat nañu ko ngir mu ñëw def parce que boo xoolee ci guddi gi ambiance ba fa nekkoon ak bi Amadou Ba di ñëw ci ëllëg si bokkul. bokkul ci guddi ga. dafa fees dell. ambiance bi nañ sax di contester. jeex na ambiance bi jax ñu commencé di génne ñoom seen ay résultat Amadou Ba gagné dès le premier tour a à 65 pour cent commencé defar affiche yi di partagé. Hmm. mais Amadou ñëw. tàggatoo ak mbooloo mi leen yeewu nañ leen suba la ñuy doog wax nga sentir ne foofu itam am na leneen loo feeñaat muy toujours les militants dafa am fu ñu toll. ñoom maanaam maanaam maanaam toujours militants yi. am na fu ñu toll ñooy pousser seen ay leaders pour par pour que pour ñu def yenn erreurs yi. Mhm. Amadou bu toppoon foofu ay militants wax na lu ñu koy xeebee bu yàgg. mais dafa ñëw. dafa ñëw garder sérénité am calmer leen ne leen léegi dem leen ba suba. ci laa doog wax ma ma doog wax. ak seen askan mais résultat yi si si si mais mais ak lu mëntu mais ak lu mëntu xew xam nga ne am na ñu ko doon pousser pour que. mu wax leneen lu ah, bokkul ak li wax mm. am na ñu wax loolu. léegi nag euh, yooyu yëpp dafa nekk benn liggéey boo xam ne dafa yàggoon dama yàgg wax ne Sénégal 2021 2021 lañ commencé woon jël seen décision ferme léegi nag bu xeex jotee ki mën a xeex day dem xeexi ki mënul xeex toog mais en tout cas Sénégal yi moom li ëpp jëloon nañ seen distance depuis deux mille vingt et un te dama jàpp ne élection bi maanaam ni mu demee nii comme li nga wax ne taux de participation bi donte la yéeg na mënoon na gën yéeg. Mhm. parce que ñu amoon yéene vote ñu empêché leen pour ñu def ko. Mhm. am na ñoo xamante ñu ngi ci Nicaragua bii lañ jaaree dem. bëri lool ci année bi am na ñoo xam ne ci gaal yi lañ jël bokkuñ ci lim bi ñuy wax nii am na ñoo xam ne ay ndaw lañ yoo xam ne am nañ carte ba pare mais mënuñoo voter. Mhm. parce que fa ñu déposé loolu itam dafa nekk ay yooyu yëpp dafa nekk. voilà yooyu yëpp da nga koy da nga koy compter waale ci mbir mi. Mhm. et puis nga jëlaal ne Cheikh Tidiane Dièye bi nga xam ne dafa retiré candidature am am na candidat yoo xam ne moo leen raw. nga san nga xam ne pour pourcentage moom vote bi mu am moom vote bi Habib si am amaana erreur la mais ci vote Diomaye la bokk. léegi nga sentir ne kon askan bi moom jëloon nañ seen responsabilité jëloon nañ seen décision ferme ci élection yi que am na ñun fu ñuy féete ba pare léegi nag boo defee lecture boobu ba pare ci ngay xoolee ñan ñoo war opposé mm-hmm. ñi toog muy question bi nga laaj sànq que démb am na ko nga xam ñu jëfee opposé lañ ci bu ci li leen askan bi di xaaree mm-hmm. li tax sax gën a yéeg mais ki topp sa kaw amaana <laughs> bu dee dañ koy def comme 2019 Idriss Seck moo nekkoon chef de l'opposition mm-hmm. léegi Amadou Ba. en tout cas na ay mag de. non kan mooy nekk seen ko tegee ci pourcentage élection yi bu ñu ko tegee xam nga Idrissa Seck daf ne moo doon deuxième. Mhm. moo taxoon de l' opposition. mais léegi kan moo nekk du mhm. Amadou Ba. xam nga ne ku muy opposé wax dëgg yàlla. ku mu nekk sa chef de l'opposition xam nga ne yow wax dëgg yàlla am nga temps liggéey. parce que Amadou jàpp naa ne Amadou du wax. bu dee ne guerre la ko ñoom Sonko doon tuumaale Amadou yoreetul kees yi bay gerati. kon jàpp naa ne kon foofu kon opposé bi dina yomb te fi muy jafee rek mooy li nga wax sànq dañoo yee askan bi léegi kenn sàngootul. Mm-hmm. wala ku sàngu itam nelawoo bu njëkk ba taximaan bi day xëy toog ci taxim lijjantiwul politique homme politique bi lu ko neex def élection rek la la la doon xaar. Mm-hmm. commerçant bi da daan ubbi boutique am yoonam nekkul ci politique lijjantiwul ministre bi def na lii wala lale mais nag Pastef dafa ñëw fexe ba dugal ñëpp ci làngu politique. taximan bi fi muy toog téléphone am toujours li muy vérifier mooy fan la ministre bi xëy tey fan la gont budget bi ñu ko wateel fan la koy dugal léegi nag comme yéena leen ba pare moom mm-hmm. jub jubal kesee ku kesee moo tax ni ñu ko waxee noonu jub jubanti jubal ñoom loolu rek moo leen arrangé amaana nag am nañ chance boo xam ne président Macky amu ko woon mm-hmm. Abdoulaye Wade amu ko woon bu dee Diomaye li tax ma wax chance boobu mooy président Macky dafa ñëwoon au pouvoir fekk moo doon leaderu parti di gérer parti bi en même temps di gérer nga xamante ni moo di Euh, poste président bi ñu ko dénk. mais Diomaye am na sens boobu. moom léegi bu ko neexee comme ni mu démissionné nii ci li nga xam ne moo di euh, cër yi mu amoon ci parti bi mais talatul waxu parti léegi bu ko defee lépp lu jëm ci wàllum politique. Ousmane Sonko mën na ko gérer di continuer. amaana yow euh, Cheikh Bara Kébé boo xam ne am na loo seqoon ak Diomaye en tant que président léegi mënatoo jote ci moom yaa ngi commencé mer wala am lu la commencé naqari mais boo gisee Sonko lu la naqari woon da neex mm-hmm. kon sens boobu am na ko daanaka day nekk benn bouclier boo xam ne day taxaw ci wetu jomaay moo tax euh, ñu bëri ñuy wax comme que mu dugg ci biir gouvernement et man li ma jàpp rek mooy na koy conseillé loo xamante ni na nekk ci ginnaawam te te du sukkandiku ci benn poste mm-hmm. mais moom continue li nga xam ne moo di liggéeyam ci wàllu parti muy Pastef mu géré ko après comme jomaay dénk nañ ko réew mu tal li nga xam ne semaine bi voilà ne <laughs> léegi bu booster na ko pousse na ko pousse na ko ba mu ba mu nekk président léegi na retiré wu. mais gisaguñu contraire bi ah. non pas mais gisaguñu non non non maanaam maanaam même ñi koy wax dañoo gisagul sax contraire bi maanaam dama jàpp ne ñi leen bëgg a opposé comme ni ko Cheikh Bara waxee léegi. Mm-hmm. dañoo nam mu opposé leen. ba di leen opposé te yegg seeguñ. au pouvoir Sénégal moo bëgg loolu. voilà eh, te nag attends te nag gis nga loolu. Mm-hmm. gis nga loolu da leen di perte loo seen crédibilité laata même ñuy gis erreur bu Diomaye def wala wala Sonko. Mhm. xam nga par exemple benn Pape Djibril Fall li tax mu tudd ko tuddoon Anta Babacar. Mhm. xam nga wax leen sànq système bi daanaka ñu si bare bëri danañ dem retrait politique. Mhm. moo tax mu tudd ñaar ñooñu que ne ñu waroon a mën a am taxawaay lañ ci li nga xam ne moo nekk ci suñu kanam. Pape Djibril du la. d' accord mais duggoon na ba pare ci mbir mi. est du delluwaat rek ci journalisme bi. comme gannaaw am na fonction. <laughs> mais mais en tout Sénégal yi jamono bi fi ñu toll duñ baale duñ fàtte. parce que varié tax loolu mooy problème maanaam discours bi maanaam voilà lii la maanaam maanaam discours yi nga fi tenir. ci diggante bi nga duggee ci politique bi ak léegi moo la dul bàyyi daf lay topp. bu mais li may wax foofu rek mooy ñiy critiquer Ousmane dafa war a dem ci ginnaaw bàyyi Diomaye mu doxal dama jàpp ne gisaguñu mm. lu war a tax ñu wax loolu dama jàpp ne ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo doon wax ne jomaay dafa ndaw warul mën a jiite nguur kii ku ko fekk muy taxaw ak Joe Biden mooy ñi nga xam ne barki démb ñoo doon wax ne mm. Ousmane dafa bëri fitna réew xeex deferu ko nangam sangam ñii amuñ amuñ ñi amu amuñ responsabilité xamuñ sax lan mooy responsabilité jot nguur ñii kenn du leen jox réew mi ñi doon wax loolu ba léegi ñoo nekk di waxaat lii mais euh, il faut léegi ñoo xam ne sénégalais yi fi ñu toll ak fi ñuy gisee mhm. yàlla xam na ne boo jàppee ne yow mi toog ci plateau bi di wax mhm. yow mi toog ci assemblée di wax yaa leen gën a yeew yaay ki gën naxu ci àdduna bi gis nga di nga li tax li tax ay fen baaxul mooy buñ ko tàmmee ci yow da ngay dem bay wax dëgg ñu naan ah day fen rek ñi taxaw léegi di critiquer Diomaye mm. ëllëg Diomaye dina def lu war lu jara critiquer mais buñ ko waxee sénégalais duñ ko déglu ni ñu ko war a déglu moo tax may sàkku rek ñi nga xam ne ñooy ñoo ñoo taxaw di préparer pour opposer nañ taxaw dal xam ne ñii li leen indi fii du ay discours kase kase kese de dëgg ci la bokk am nañ solo trop mais Ousmane dafa am lu mu doon teel a wax homme politique ñaar la parcours ak discours mm-hmm. mais da fexe yow ba jagalaale sa parcours laataa ngay war a opposé jëmm ji taxaw mais par exemple boo yàqee sa parcours. Mhm. ba pare ëllëg nga bëgg a ñëw di ñu tenir yenn discours yi. mais dañuy indi dañuy xool histoire sa démb lan moo fa xewoon. jeex na naan la kaay taxaw. bi muy opposé du moom kese moo doon opposé parce que lim am du jëmmam kese moo ko may. Mhm. askan bi ànd ak moom opposé mais yow mi ko fasoo opposé nag léegi xam nga lay fexe ànd ak askan bi opposé ko boo bëggee réussir. léegi nag ñoom itam ñu fexe ànd ak askan bi ci li nga xamante ni moo di liggéey bi ñu leen di xaaree ba askan bi mën a continuer ànd ak ñoom. Mhm. te jàpp naa ne eh, du ñu ci perte lu baree bari. la tax mooy cofeel gi askan bi am ci ñoom dama jàpp ne dinañ ci dinañ ci profité. occasionné aussi liggéey ci lu bëree bëri. feeñ na ci feeñ na ci li nga gis eh, ñu woote set setal. dañu jàpp naa ne président Macky bu toogoon ne bu président Macky bu ne suba nañ setal dëkk bi sa koñ sa bopp balaa ko setal da nga koy laaj te il fallait que citoyen bi dem ba yëg ne am na cofeel ci ki ko jiite. am na cofeel ci république bi ba nga xam ne bu soxlaa day def sans muy laaj dërëm. loolu nag comme ñu yëg nii am nañ cofeel googu seen digg askan bi nañ ci góorgóorlu ba nga xam ne dinañ ko garder. waaye lépp effet président bébé bi la de pour ko fàtte. non bébé bi moom maanaam loolu. effet effet président loolu loolu loolu jàpp naa ne keneen ku mu doonoon itam. waaw xam nga dañu même bu doon Cheikh Tidiane Dièye même chose. man ragal mm-hmm. naa nag ragal naa nag son excellence euh, monsieur le président. Euh, El Hadji Mouhamadou Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme ni Pape Anne ah. voilà <laughs> oh, Diakhar <laughs> ah waa baax na lu sotti am borom euh, nu mu tuddati ragal naa ne dina dem jël nguur gi toog fi lim fi war a toog lu yàgg yàgg yàgg di dégg Diomaye c'est juste nag gars yi bu ñu fàtte ne euh, parfois dafa am benn tur boo xam ne dañuy tàmm di ko woowee nit. am tur boo xamante ne dañuy tàmm di ko wooweekee ku ci mel ni euh, usman Sonko. Mhm. boo xoolee doo dégg sax ñu naan ko Ousmane Sonko. président ngay dégg mhm. pro pro président président jom jaxaar moom it yaakaar naa ne li muy di pour mu dégg président dina. jafe jomaay ji non yooyu moom yooyu moom gis nga li am solo. du tur bi ñu lay woowee li am solo. du yére bi ngay sol li am solo. parce damay gis gars yi di ko bind ci. non yooyu yëpp xam bi muy indi bi muy wax Ousmane Sonko président Ousmane la bind. Mhm. léegi après gis naa ay nit gis naa ay nit yoo xam ne ñu ngi ñëw di critiquer et tout nangam sangam. mais li am li am solo li am solo mooy fi la askan bi di xaar mhm. gis nga askan bi yàlla xam na ne ku jàpp ne ci moo yooyu la ñuy taxaw wala boog ci la ñuy respecté nit. Mhm. wala li ngay solu ci la ñuy ci lañ lay respecté yaa ngi nax sa bopp. Bassirou Diomaye xam nga xam nga il faut léegi ñu xool ki Sénégal yi fal. Mhm. maanaam dafa nekk koo xamante ni barki démb ak barkaatu démb amaana jënd na benn simis fii Colobane. Mhm. barki démb ak barkaat démb amaana téye na yileeram. dem bayi ci déggoo vaar yi. la kosam bañ ko génnee jamono léegi léegi li tax li tax may la. ki ñu fal il faut que maanaam ñi koy critiquer xool xool kan la d' abord. Mhm. que bu njëkk dañ doon fal koo xamante ni. dëgg la même bu gëmoon ab sénégalaise nekk ko juddoo fi yaroo fi màggee fi laataa mu yegg si au pouvoir occupé na ay postes yoo xamante ni defal tax na mu am distance ak askan bi jumaay dundul loolu. Mhm. nekkul maire. bay am ay garde corps ci diggante bi wala boog itam eh, ana Diomaye laa soxla dafa tëju baar xaar sàngam jaaru ci. Mhm. bu dee Ousmane Sonko amaana dund na tuuti as nguur lu koy niroot. Mhm. parce que nekk na maire diggante bi am na fi eh, ay eh, protocole am na nangam sàngam boo ko soxlaa jaar fii mais Diomaye ku ne xam ne loolu jaaru ci. Diomaye budul woon ak prison bi mu nekkoon. quelques quelques semaines ci ginnaaw. Mhm. mais Diomaye xam nga ne balaa moo voté bu amul sax dëgg bi Dakar lay jógee wala bëgg tam njëgënaaw ko mu nekkoon fa di dund ak ñoom ba kooku la ñu soxla woon dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax ma am ku ma wax ma ne ko jamono bi Diomaye moo gën a placé pour doxal li koy xaaree que Ousmane Sonko parce que Ousmane au moins doon na fi leader benn moment euh, nit ñi xam ko euh, am benn sympathie bi mhm. euh, dund na fi jafe-jafe am ñi ñu ko tàllal loxo am ñu ko jàppale am lii am lale mais Diomaye kan moo ko bàyyi woon xel firi Diomaye li ko tëj yëpp déggoo ko kon mooy nekkul star lañ jox nguur comme que a joxoo ko benn star il faut que nga xam loolu. moom ci boppam yàgg naa yàgg naa wax ay affaire de. non yàgg naa non yàgg na non yàgg léegi nag loolu bu nekkee ci moom da xam ne sénégalais pur et dur moom nga fal Sénégal pur et dur boobu nag ki koy critiquer bëgg di ko critiquer ci dafa waroon niroog France daa waroon niroog États-Unis daa waroon niroog feneen mais yow réeroon nga askan bi bu ah, baax a baax a baax te bu ñu góorgóorloo lu leer laa la wax de. jour bi mu gagné sax ci euh, loolu laa dina jafe loolu mu réeroog Sénégal yi bu góorgóorlu. waa waaw jour bi mu homme politique yi nag moom homme politique yi moom mën na réeroog ñoom amul problème. mais askan bi na nekk priorité te jàpp naa ne euh, bu góorgóorloo du réeroo ak ñoom. si si bu victoire bi bi mu biñ ko biñ ko annoncé ba mu euh, def fële conférence de presse ba fële Radisson. Mhm. mu ngi koy wax mais ci forme de si sous forme de roube. Mhm. mu ngi naan maak Ousmane mii ngeen di gis nii. des fois dañuy réeroo ci ay kàddu ndax man dama dëgër bopp pourtant dëgër bopp mhm. boobu noonu mooy firnde yenn plateau yi nga xamante ne temps yi mhm. gars yi ñu ngi koy wàccee di ko met El Hadj Diouf di jéem a këndëng këndëngee di clash Ousmane Sonko nangam mu siggi ne ca tonet ne ko yow mhm. France bi nga kii moom day <laughs> wàccee ton bi mais du tee dana la laal bëgg wax laal waaw loolu tamit c'est très c'est très important loolu loolu li ko ko may mooy sénégalais bi mu nekk waaw pur et dur dem ba nga xamante ni jëmmam sentiru ci leneen xam nga nit bu nekkee mën na nekk sénégalais mais sentir nekk français. Mm-hmm. ci solum Mhm. ci waxam ci am maanaam sax kersa ci accent wu séeréer di feeñ sa wax mhm. yi yooyu yëpp am fi Senghor sunuy yee ngi fi quatre paroles yee ngi fi xam nga xam nga yëpp lépp lépp la wax bon ni mu solo ni mu taxawee Sénégalais li ñuy xaar du loolu de ni mu joobee la ñuy xaar. colo bi loolu loolu. la waaw boobu mooy mooy mujj. avant ñuy dem seeg si sa laaj bi nga laajoon sànq ne moom la ñuy ah, tëjee lan la état bi non non jeexagul dañuy ñëwaat ba tey yéen bu ñu leen amee duñ leen bàyyee noonu. ginnaaw li xew ci semaine bi lañ war a waxtaane semaine gi boo leen ñu rëccee rek xam naa ne duñ leen gisaat léegi. ci koor lañ nekk waaw ci koor lañ ne loolu du problème. Ah, ok yàlla du am benn problème. Kébé. dañuy invité ndogu xanaa. ah. Kébé li ngay def nii yëpp man gis naa ko daal gis naa fi koo xam ne daa war a ñëw liggéey ñu koy woo mu daal di toog ci suuf jël taawam ne du liggéey benn xale la mu ngi sañ sa tey nag sol lu vert tàkkal la. ma tontu ay picc. fi mu ne nii ah. ah man tontu gis naa yooyu daal amul problème léegi ci ci bu gën a ci bu gàtt rek ñu tënk ko ah, laata ñuy ñëw ci dernier kër laa war a dem de. loolu du problème est-ce du ñu bokk yoon sax àndaale. Mm-hmm. Euh, gis nañ fi tamit euh, son excellence mm-hmm. Macky Sall yow euh, ñu ngi ñu ngi compter jours yi nga xamante ne li ko dese mu départ bëriwul. Mhm. ñu dégg benn xibaar ne daa nommé kii di Fou Malade da ko jox benn post Malal Malal Malal. waaw Malal alias Fou Malade waaw alias Fou Malade Malal Talla. Malal Talla alias Fou Malade. tur boobu moo ko may lu mu lu mu am lépp de. ah en tout cas occupé na poste. te poste bi mu occupé nekkul poste Thiamon. voilà ñu gis ne ne waaw ñu gis ne ne moom moomu di. Euh, Malal Talla boobu. Euh, seen mouvement bi ñu amoon. bokkoon na ci mouvement yi gën a bëre doole mouvement boobu su ma juumulee sax bokkoon na ci li faloon uh, kii di Macky Sall yaanamaa mm -hmm. alors bi Macky Sall yéegee tamit ñu dem ba benn moment d'accord ñu ak Macky Sall ci ni muy doxalee ñu xaw a duuloo mhm. lan moo waral ñu dem ba ci cappaandaw gi Macky Sall war a dem xëcc malal taala di ko jox benn poste. yow xam nga moom puisque puisque mooy ndey mbil gi nee na moom yëgul sax nomination bi ni ko ni ñu ko yéegee noonu la ko yëgee. malal taala. waaw bon mën nañu jàpp ci loolu mais man ce qui m'intéresse mooy que ni le président Macky Sall à 48 heures de son départ. Mm-hmm. moom muy nome mais. pas Malal sax mais Abdoulaye Ndiaye bi nga xam ne daf ko nommé foofu la ci cour suprême de Dakar bi nga xam ne c'est un poste stratégique boo xam ni tey jàpp naa ni président Diomaye dafa bokk ci réforme yi nga xam ne su dikkee ñu ngi ko ci xaar mais mu teg fa ki nga xam ni moom mooy Abdoulaye Ndiaye bi nga xam ni déjà sax d'après nos informations président président Macky Sall signé na ba fi mu ni ñoom ñaar ñu war a amal li nga xam ne moo di passation de euh, de service yi muy Siré Ali Mm-hmm. Euh, bi nga xam ne dafay dem retraite moom moo génn Abdoulaye Ndiaye bi war a war war a ñëw Siré Ali ba gis nañu li mu li mu fusillé mm-hmm. moo invalidé candidature Ousmane Sonko ah, ci dossier Mame Mbaye Niang bi euh, mm-hmm. instant bi jeexal na dem na maanaam ñun li ma ci gën a métti mooy ay mag yoo xam ni dem nañu ba fi mu ne nii presque troisième âge Sénégal ci gudd goo xam ne pare ba pare bëgg dem nag bàyyi ko fi mais président Macky Sall li mu def nii bokkul ci élégance républicaine pour dire vrai parce que fi mu ne nii moom xam nañu dafa nekk nii téye nii rek di doxal mais il n'est plus le président de la république du Sénégal. est-ce que nekkul ci gëmmu dóor parce que kii dafa jëlagul fonction. daa ni gëmmu dóor bi mu doon wax nag fi mu ne nii lay lay moom la nekk. waaw mais li dafay indi. gisul gisul fu muy teg indi euh, soupçon ci ni. parce que Ablaye Ndiaye bii nii moom d'après deux décisions de justice benn bi fi la ci Ziguinchor beneen bi fii ci tribunal bu Dakar. ak mm-hmm. euh, Racine Thion. kële euh, l'autre daal nu mu tuddee Sabassi Faye mm-hmm. attee ni Ousmane Sonko dañu ko jaay doole ni ñu ko génnee ci fichier bi du yoon nañu ko dellawaat ay aqam ak yelleefam mhm. Abdoulaye Ndiaye bii moo tax woon laa ngi ñu du fi amee nag bu ñu demee ba président Macky Sall bëgg a jeexal war a dem mhm. jël ko teg ko foofu mais est-ce Sénégal du ñaaw njort ni mais ñii est-ce que du dañu waxtaane woon lii pare président Macky Sall ni ko lii laa bëgg su ma ko defalee xëy na lii mooy récompense bi <laughs> ay soupçon la rek yoo xam ne tey Sénégal yi kenn ku nekk mën na ñaaw njort mais aussi jàppoon dafa bëgg a mettre juste en mal Pastef maanaam le président Diomaye avec la population parce que gis nga le geste du balai là bi Diomaye defoon mhm. maanaam ñun Sénégal dañ koy xaar mais xam nga parce que mhm. parce que tey jii nii bu ñëwee fal ñi muy fal mu fal koo xam ne sax yëgu ko eh, dama ci dolliwaat ASP yokkaat nañ seen i poste sans affaire yi dañoo ubbi poste kii fonction publique instant bii nii mu ngi mel ni tulleeg màlle ci engagement yi mhm. ku ne xaañ na la dugg nga ku ne xooñu la dugg nga léegi moom joomaay bu ñëwee ba toog war def lañu naan raxas mhm. comme Sonko ni mu ko defee woon Ziguinchor ñëw Ziguinchor yow da ngay toog sa kër ne la ba yeewu xëy def mairie ba fayeeku mhm. créer ay postes yoo xam ne amul benn njariñ mu génnee ko tey jii nii tey lu ñuy xaar ci moom mooy yaa ngi dégg la gouvernance par les compétences comprendre nga parce que qu'on qu'on se dise la vérité quoi gouvernance bi suñu président ex président doon def tey jii nii dëppawul ak li ñu soxla woon un farba qui vient avec des biens yoo xam ne bul comprendre qu'est-ce qu'il sait quelles sont ses compétences qu'est-ce qu'il nous a vendu lan la quelles est quelles les compétences qu'il a vendues au Sénégal qui lui vaut tout ça yaa ngi dégg. Mm. léegi tey le président Diomaye bu ñëwee toog tey ji waa raxas raxas boobu noonu il va créer des frustrés. <laughs> y aura des mots qui vont se lever c'est comme aujourd'hui président ne carrément bon man parcelle dama ko soxla pour euh, benn travaux publics créer des logements sociaux damay génnee waa parcelle comprendre nga. Mm-hmm. bi mu waxee day génnee waa parcelle génne na raxas na terrain moom set wecc pour loolu noonu yaa ngi dégg Diomaye ñëw ne waaw euh, euh, président bi il faut que. ñi mu raxas moom bañ leen fay parce que amuloon amuloon amuloon titre foncier délibération la woon te ñëgu til ñëgu titre foncier leen facture il faut que ñu wàññi ko loo ci gis dix mille laa waroon am joomaay ne man de mille laa am parce que délibération laa am mer day am mais dañuy ñaan rek ci côté boobu noonu sénégalais yi nañu comprendre nañu comprendre au fait la vision bi fu ñu bëgg a yàgg àgg. Mm-hmm. fu ñu bëgg àgg. Mm-hmm. lan moo ñu koy may. il faut que sénégalais yi jéem loolu noonu. <laughs> comprendre nga man foofu laa ñëwee ko dina laaj ci yow sa position par rapport à ça est-ce que yaakaaroon ni tamit loolu du porter préjudice Diomaye mi nga xam ne dafa la ñëw def li nga xam ne ratissage. Mm-hmm. pour defaraat li nga xam ne mooy les sièges. nettoyer les sièges pour les pour y poser les personnes qu'il faut voilà. nga comprendre fi ngay fi waxee mooy que ni tey Diomaye su dikkee. Mhm. Euh, fekk fi ay yoo xamante ni si ni c'est illégal euh, manifeste buy dindi su ko defee Sénégal lay jóg ni voilà mi ngi dàq ay père def soutien de famille ainsi de suite pour mettre ko mhm. mal avec la population mais loolu nag. Euh, d'où l'importance d'où l'importance de la communication bi nga xam ni tey pour man la parti Pastef et la coalition Diomaye war nañ ko poursuivre. Mhm. pour gën a yee Sénégalais yi. gën leen a wax li nga xam ne mooy xew parce que du foofu kese ah même RTS gis naa fa ay ay augmentation yoo xam ne euh, ñu ngi ko fay signalé. Mm-hmm. ak feneen ak feneen foo xam ne ba nga fay am léegi nag président Diomaye bale bi nga xam ni dafa wax ne da koy def parce que booy boo li ñu naan booy faj nag nuñ koy waxee ti sax. foog nga xooli góom bi waaw. booy faj. kuy faj doo yërëm. kuy faj doo yërëm. kuy faj doo yërëm. waaw kuy faj doo boobu noonu. Mm-hmm. jomaay tey maanaam bu ñëwee am benn yërmande wala benn yox-yox yi rek maanaam bu moytu ci na fa jaar échoué gis bu dikkee. Mm-hmm. fii li jaarul yoon lépp maam li naan gëm gëmmu dóor ba ñu wax ne fii la amee sens. Mm-hmm. gëmmu dóor boobu. ay bërki démb la fi teg ak ay soutien de famille ak nii nii nga poste par compétence gis nga euh, ba lay jox. na fekk nga mérité tamit. nga jaar fi nga war a jaar pour am ko c'est important. Mm -hmm. parce que da nga am benn bàjjan wala braloo rek ñu jël la teg la fa. te ah. jaaroo fi nga war a jaar loolu aussi tamit. soo wax na ko dem yooyu yëpp daf koy daf koy liggéenti ah. par par loolu waaw. dem bu bëgg a dem indi sa ay jarbaat sa ay tànta say umpaañ say nijaay yëpp teg leen foofu noonu ba pare ni. Ah. voilà duñ leen laal parce que ay suñu dafa mi loolu. Mm. kenn loolu kenn du ko fi encouragé. pour pour dire vrai moo tax loolu c'est important. ñu ñu ñu ñu bàyyi ci ñu bàyyi ci xel ci côté boobu noonu mais euh, nomination te président Macky Sall li nga xam ni tey Bassirou Diomaye Faye moo ko waroon def moom bu ko di di ko def à sa place loolu nekk la lu kenn mënul comprendre te yaakaar comme ni mu waxee rek bokkul aussi tamit. Mhm. Euh, ci li nga xam ni moom mooy élégance républicain euh, kon tey Bassirou Diomaye Faye fi mu ne ni xam ne li koy xaar parce que déjà ku commencé gul di éviter ay folklore ak i xumbaay ak i mbumbaay. prestation de serment bi nga xam ne moom nga waroon def loolu yaakaar naa que c'est bon signe que ni ah en tout cas séeréer la bu ñàkki caaxaan li ñu naan caaxaan faaxee. parce mhm. que xanaa ku xamul jomaay mais ku yàggoon a topp jomaay fay Bassirou jomaay fay ci avant muy xam nga ñu ngi naan Bassirou Ousmane Sonko Ousmane Sonko lu jiitu at xam na ne moom du nekk candidat. c'est-à-dire maanaam ñoom seen ay stratégie moom fexe ne ba làq jomaay parce que moom ba mu xamee ni mu nekk candidat xamoo ne ni jomaay mi mooy homme de confiance am. Mhm. mais fexe ne ba làq jomaay. mais est que ça. bu Sonko avant lu jiitu at xam na ni xam na moom. mais est-ce que nekkul plus que ça maanaam homme baax bu baax. am na sa wax na ko. Sonko Sonko ci boppam sa wax na ko. Euh, mais la mu réussir làq jomaay ba benn xelu doomu aadama xalaatul jomaay. Mhm. loolu moo jar a wax. Ousmane Sonko mais vraiment c'est un génie. amul ñu nit ñi xoolal ñu doon fu ne ñëw fa doon jeex mais kenn mësul xalaat jomaay ni Ousmane Sonko dana ko xalaat a jël lu toll nañ réew mu jël ko teg ko loxoom parce que na ma ko làqee la ak yàlla dimbali ko ñu jël ko tëj ko ci kaso bi. ñoom seen équipe euh, de travail bi ñu gis la fois passée mooy bi ngeen di tooñee mu solkat bi. Mm-hmm. mais staff ñooñu kan ngeen ci xàmme xàmmewu leen ci kenn équipe boobu xam nga kañ la ko Sonko jomaay formé bi ñu nekk ci biir prison bi. lañu lañu formé équipe. waaw boobu génnuñu sax génnuñu bay battre campagne ba daan dañuy gagné <laughs> équipe boobu. Mhm. ñu ngi ko formé ci biir prison bi dèjà ñoom xamoon nañu daan gagné te xam nañu fi ñu jëm te ñooñu ay ay nit lañ yoo xam ne Sonko ak Diomaye yàgg nañu liggéey ak ñoom ñu xareñ ñu am kóolute. ñu mhm. seen loxo set ñoo xam ne tey ñu bëgg réew mi lañ. Mhm. moo tax ñi ngay gis ba gis dañu pare de. waxuma ko nag maam li nga gis nii. Mhm. xamee leen ci ay kàngam. li nekk ci suuf nekk i kàngam te xamoo leen moo ëpp fu moo tax gouvernement da nga leen a gis teet yoo xam ne ñu naan waa ñii fi mu moo tax ma ne leen ñun ñi nga xam ne jànguñu ñun dañuy am problème. c'est ça ay cadre ay kàngam yoo xam ni tey jii ñoom ñoo séq séq séq projet Pastef bi. Ah. mais Pastef boo gisee ni mu demee nii nga xam nii ay. ay ay ay n'importe qui nekkuñu nekkuñu ci ci ginnaaw ñii. ku ko mérité rek ku ko mérité rek yaay toog. merci loolu daf ci daf ci daf nee na <laughs> amul dama cee jàpp amul dama ci nii. poste bi ku ko mérité dong moo ciy toog amul jàpp dugg naa fi maa defoon lii maa def. naa amul militant de première mu ngi noonu kon nañ ko dégg nañ ko déggee noonu te it président bébé ñoom seen euh, kii boobu ñoom ñëpp a jàng tarkal la te ku ñuy teg ci banc bi bopp bi du nekk bopp bu vide ñi jotul woon na